Marcel. Charlie France jox ak ak yelleef ambulant bi laal li yow wax ma léegi lan lay def amul palte amul place warul yettul fii amul liggéey wax ji bëri ci assemblée violer loi de Guèye bay APR insolent wax ji ñaaw bi duñ ko solal tubéy Latif Doudou jaay ngorom Souleymane Jules Diop moo mun a ware Amsatou Sidibé ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ xëy na maa tey fa toll ci dossier Bassirou Faye man di Benno Bokk Yaakaar sénégalais sénégalais Yeah. asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp di màggal le peuple sénégalais le peuple digne intègre le peuple résistant góor jigéen mag ndaw yi nga xam ne boobu léegi ñu ngi taxaw di ko xare di joxe seen bakkan di ñii di rot ñii di daanu ñii di continuer combat bi ba suñ jon yàlla tey ñooñu nag nañ xam ni kenn amul seen fay ku ci dee àjjana nga jëm direct direct laa la wax parce que da ngaa xeexal sa nation day mel ni jamono yonent bi sallallahu alayhi wa day mel ni jamono Yeesu Krista bu ñuy xeexal seen drapeau bu ñuy samp seen drapeau ba tey jii suñ jonn yàlla tey ñun ñu nekk ci jàmm dafa am ñu ko xeexoon parce que comme ni ñu koy waxee une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent àdduna loo ci gis rek dafa am ñu koy sanc ñu koy sanc nag duñu fekk mbëggeel gi duñu fekk bànneex bi waaye dañ koy sanc pour doomu aadama yi nga xam ne ñi ngi ñëw ñooñu nag lépp luñ fa dund ci jàmm rek nañ jàpp ni bu dee ñaari paar la benn bi day dellu ci ñi nga xam ni ñoo ko xare ñoo ko sanc teg ko foofu noonu dem woon leen ginnaaw kon fii lépp lu fi am rek dañ koy sante suñu borom te xam ne ku fi bakkanam war a rot dafiy rot malgré que nag rawatina ñu ray la ñu la rayee moom àjj na nga jëm direct képp ko la wax ni booy xeexal sa nation de safara nga jëm ne ko da ngay kàcc say juróom-ñaari dañuy kàcc képp ki nga xam ne da ngay xeexal sa nation ñu tiiral la bal fetal nga dee yàlla nee na ku la rey moo gàddu sa bakkaar yépp ki la tiire moo gàddu sa bakkaar yépp donc yow àjjana nga jëm direct te àjjana moom moo gën fii foofu foofu foofu foofu sant yàlla di gërëm ñëpp di nag euh, wu njaboot gi nga xam ni seen seeni doom dañoo faatu seeni njaboot dañ cee rot seen bakkan dañ cee rot ñu ngi leen koy jaale comme ni ko nga xam ni combattant yëpp ñu ngi koy def Euh, ki nga xam ne mooy njiitu réew mi boobu ba léegi y a plus de 19 morts gisu leen ko mu génn gisu leen ko mu wax ci ndax doomam deewu ci jarbaatam deewu ci euh, rakkam deewu ci moom pour moom njabootam rek la gérer mooy fay Timbo Gassama comme kenn deewu ci ku bokk ci ñoom sant fay wala timboo wala Gassama wala Sall moom doome xaraamata njaay bi moom Macky Sall du génn du jaale askanam pour wan leen ni assassin la doome xaram la malgré que àdduna bi gars yaa ngi Sénégal yaa ngay tàkk ñi doomu aadama yaa ngay rot bakkan yaa ngay rot force de défense et de sécurité maanaam police alkaati yi ñu ngi tiire doomu aadama yi ñuy faatu di daanu comme des mouches te ba léegi génnul wax ci ñi nga xam ne ñoo dee wala jaale leen waaye mi ngi mel ni yégalu ko yaramam ki dem gis ngeen un imbécile un sinistre espèce du sax ministre doomi xaraamata Ndiaye bu génn naan ay 17 millions bu 7 deeg bu 4 deeg bu 3 deeg whatever on continue le combat. Nous, on n'est pas là. On va régler leur compte de toute façon, par A ou par B. Parce qu'on est très déterminés. Nous sommes pour carrer, pour libérer. Je vous Ousmane Sonko, c'est une partie visible de l'iceberg. Le combat, am voyez, ñu naan élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est Ousmane Sonko. ñun xeexaluñu Ousmane Sonko ñun injustice buñ teg ci Ousmane Sonko la ñuy xeexal ndax Ousmane Sonko xeexaluñ ko ndax bóoteem xeexaluñ ko ndax njoolaayam wala sewaayam wala rafetaayam wala taaram dañuy xeex injustice bu ñu teg ci kaw Ousmane Sonko injustice ndax injustice boobu ñu tegoon ci kaw Khalifa Sall jëlaat ko tegaat ko ci Karim Wade jël ko teg ko ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko injustice boobu la Senghor tegoon ci Mamadou Dia moom la tegoon ci Cheikh Anta moom la tegoon ci ki ki nga xam ni moom moom moom mooy euh, Blondin Diop moom lañ teg ci Lumumba loi moom lañ teg ci Sankara donc ñun injustice la ñuy xeex xeexaluñu Ousmane Sonko moom moo ko subir moo tax peuple bi génn xeex injustice donc ñun sañu xeex mooy injustice ak imposer une démocratie récupérer suñu souveraineté teg fi suñu justice loolu la ñuy xeex xeex suñu xeex injustice teg fu démocratie bu dëggu dans les euh, euh, noblesse de de l'art teg fi li nga xam ne moom mooy justice bu équitable teg fi récupérer suñu souveraineté nationale donc loolu moo ñu tax a xeex mais du kenn koo xam ne mooy ñu tax a xeex du ay personne de xeex bi dépassé na ay personne ak ay personnage ak ngeen xamee ko noonu donc di leen wax ne leen les kuy xeex day moytu émotion armée bi ngeen di gis nii duñu dara du ñu tous ay armée lâche lañ yor ay armée boo xam ni bu leen fàtte ni généraux yëpp Macky Sall daf leen a yokkal seen at de retraite ça montre que armée bii du ñu suñu xarit bu leen leen bëggee bu leen bu leen leen jagee romb leen leen continuer sa combat là c'est des lâches c'est pas des dignes fils parce que ñun suñu suñu armée amul ay Assimi Goïta suñu armee amul ay boy yu mel ni boy yu nekk Burkina suñu armee amul ay boy yu nekk Algérie ay armee lâche lañ yor ay armée yoo xam ni markatu taat ay armée généro yu sàcc ceeb yu sàcc ravitaillement yu détourner l'argent du contribuable lañ am ak ay militaires yu ne tekk ñu leen di tegi tànk ñi mun siggeeku donc armée bi romb leen leen dem seen yoon jóguñu pour yéen dañ leen a génne foofu te ñu leen génne foofu c'est les généraux mooy les généraux doomi xaram de xam ne Macky Sall da leen yokk moom mooy ñoom Maysa Sele Ndiaye doomi xaram moom mooy ñoom euh, Mbaye Cissé doome xaram moom mooy généraux doome xaram yi nga xam ne dañuy sàcc ay ravitaillement ay reykatu nit lañ ay xaritu Macky Sall lañ donc armée boobu noonu c' est vos ennemis c'est les gens la rue c' est vos ennemis c' est des gens qui ont été envoyés dans sur le terrain pour vous matraquer bu fekkee ne dañoo dem ba nangu réew mi ñoom ñoo ñuy attaqué au lieu de d' être des Assimi Goïta on n'a pas des Assimi Goïta les ku ñun peuple la ñu yàlla may may ñu ay imam yu mel ni ay imam yu mel ni euh, imam euh, bu bu bu bu Mali may ñu comme ñi nga xam ni ay ay généraux yu mel ni Assimi Goïta yàlla may ñu loolu ñun peuple intègre digne lañu ñu yàlla may nañu doy loolu ñu yàlla may def ko suñu force xeexee ko soxlawuñu kenn soxla wuñu armée bi parce que du armée traitre la armée lâche la armée vendue la armee tapette la du ñu dara ñu ngi foofu taxaw nañ leen romb dem suñu yoon bu kenn jubilé ils sont pas nos amis ils sont pas envoyés pour pour pour pour ñu dem ak palais ñu ngi dañ leen a yónni comme comme pour ëllëg bu ñu demee bay nangu réew mi ñoom ñu ñëw attaqué ñu tiire ñu du ñu nitu dara kon romb leen leen dem seen yoon te xam ne ñun wurtuñu armée bi c'est le peuple qui est là un peuple digne on va résister et continuer de résister romb leen armée bi foofu dem seen yoon te xam ne ay lâche lañ dañ leen di yabal pour ñu def du sale boulot jógu jóguñu ci ñun ñun amuñu ay imam yu mel ni imam imam Dicko amuñu ay armée yu mel ni ay Assimi Goïta donc nañ ko xam xam ni ñooñu ñun yàlla may nu loolu laa yàlla lu mu ñu may mooy un peuple digne ay booy ay résistant ay booy 12 ans 15 ans 17 ans ay jigéen ñu am 20 ans taxaw ci terrain bi xeex boobu ba léegi comme yàlla loolu la ñu may nag kon encore une fois bu ñu bàyyi nañ continuer ci lu ñu nekkoon bu ñu nangu diversion bu ñu nangu kenn détourné de l'essentiel nañu continuer suñu combat continuer suñu xeex dignité ak dignité ak tamit jël jiital suñu borom subhanahu wa taala ci lu ñuy def du ñu suñu xarit bàyyi leen gendarmerie ak policiers yi ngeen di jekku di leen bàyyi rey nañ nu mu dee dee dee jamono ji ak 19 morts ñëpp ay nervi ñoo leen rey ay policiers ñoo leen rey ay gendarme ñoo leen rey koo xam ne bu la jekkoo rey la boo ko jekkoo rey ko coup pour coup œil pour œil dent pour dent loolu la ñu woowee loi du talion loolu la Ousmane Sonko naan en wolof gatsa gatsa bàyyi leen di jàpp ay gendarme di leen bàyyi sotti leen leen essence dóor leen leen cocktail molotov yi taal leen leen taal leen gendarme yi taal leen policiers yi nu ñu ñuy reyee ñoom la ñu war a noonu la ñu war a dee ñoom donc ñun du ñu su police benn du suñu ami gendarme benn du suñu ami c'est des lâches ils n'ont pas découragé wuñu sànniwuñu casque yi ñëw ànd ak peuple bi am na yenn peuple yoo xam ne bu ñuy xeex gendarme yeeg militaires yeeg ñëpp dañu ñëw ànd ak peuple bi xeex xeex système bi waaye ñi defuñu ko dañ leen di yónni di leen yabal ñi bu ñu jàppee def ñu ay bouc émissaire wala bu ñu jàppee def ñu di ñu dóor di ñu rey di ñu tiire donc bu ñu leen jekkoo amul baal bàyyi leen émotion émotion moo leen rey émotion sonal lañu jënd leen émotion dañuy ger ci guerre lañ ne ci xeex la ñu ne buñ la jekkoo dañ lay rey boo leen jekkoo police rey leen ko boo leen jekkee gendarme rey leen ko boo leen jekkoo militaire buy trahir rey leen ko tiré leen leen sotti leen leen essence parce que ñun moom lañ am doon nañ leen cocktail molotov sotti leen taal leen dox sañu dox affaire bi loolu la nervi nag dañoo yor ay jaasi nañ yor ay jaasi nañ ko def ni ut si ak euh, uutu uutu ak tut si nañ def ni uutu ak tut si jël leen ay jaasi jël leen ay jaasi ngembal leen dun yi ngembal leen dun xaaf yi ku ci nekk këram am na jaasi ku ci nekk këram am na paaka génne leen ak jaasi yi ngembal leen ko ndax nervi yi ñi ngi ay jaasi ñi ngi ay fetal ñi ngi ay paaka donc ñun tamit war ñu génn ak loxo nen xeer baax na waaye nag jël leen jaasi yi na ku nekk jël jaasi wut leen jaasi yi ngembal leen jaasi yi nañ génn ak jaasi yi kuñ ci jàpp muy nervi amul ay nañ la dagg nañ la baal wala nañ la gaañ nañ la rey amul nervi bu ñu war a jàpp te rey ñu ko dañ ko daggate match tëb match tëb dañ daggate ko ba mu def saam ñu taal ko rey leen nervi yi rey leen gendarme yi rey leen policiers yi bu leen dellu ginnaaw ndax ñi ñuy rey ñi ñuy daggate ñi ñuy tiire donc génne leen jaas yi na gars yi génn jaas yi na jaas yi génn na jaas yi génn na jaas yi génn na jaas yi génn na paaka yi génn na jaas yi génn na paaka yi génn na fees dal ci dëkk bi ñun ñëpp kenn ñun ñoom ñu yor nañ jaas yi ñu yor ay jaas yi ndax jaas yi ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu koy jëndee nervi yi ñu yor ay jaas yi yor ay paaka ñu jox leen ay pick-up wër di ñuy di ñu machine up ñu këppati et puis ñun ñun ñu jekk jàpp leen naan dañ leen di gaañ ay ñaan bu ñu jàppee nervi nañ ko daggate taal ko bu ñu jàppee gendarme nañ ko daggate taal bu ñu jàppee policier nañ ko daggate taal ko te loolu bu ñu ko defee ci benn fan ñaari fan ñetti fan léegi nga gis ay policiers yu démissionné parce que commencé guñ di leen daggate buñ commencé di daggate policiers yi di leen këppati bu boobaa policier di ngeen gis ñu bëri ñu démissionné bu ñu commencé di këppati gendarme yi di leen daggati di leen taal di leen sotti essence di leen taal ba ñu ñuul kukk ni këriñ bu boobaa li ngeen gis gendarme yi commencé démissionné bu ñu ko commencé def donc nag gars yi pour coup œil pour œil dent pour dent ñun ami wutuñu benn amitié ak benn policier bu nekk ci terrain bi di ñu rey wutuñu benn amitié ak benn gendarme bu nekk ci terrain bi di rey wutuñu amitié ak benn militaire lâche boo xam ne da ngaa toog sa ki di xaar ñun ñu ñu ñu attaqué pour nga ñëw song ñu donc ñun amuñu ami ami suñu xarit moom mooy peuple bi jàpp leen ni benn xarit lañ am lépp lu peuple bi ennemi nga militaire ennemi la gendarme ennemi la policier ennemi la que yenn sëriñ yi ay ennemi lañ donc ñooñu ñëpp ay ennemi lañ yoo xam ne c'est les ennemis de la république donc ni ngeen taxaw ci bu baax a baax a baax te xam ni duñu xaritoog suñu ennemi suñu du ñu bëgg te duñu mës a jege bëgg pexem bu sotti woon du ñëw sax ñu koy ñu koy wër ñuy sukk ak diir yooyu yooyu c'est très grave c'est très grave c'est très grave gars yi ñu ngi force ñuy néew comme comme muus mouches ñu ngi force ñuy néew chaque jour gis ngeen Casamance ñu ngi leen di rey di leen téeréb ay bal fetal ndakaaru njaay suñu frère yaa ngi daanu ci champ de bataille bi deret gaa ngi toq di tuuru Macky Sall génnewul yéeyul yàbbiwu ci kon arrêté leen di jot gendarme di ko di ko di ko wala na ay bàyyi leen ko mu dem wala policier bàyyi leen nekk nekk leen nit nekk leen nit ci xeex la ñu nekk amul émotion ci guerre la ñu ne amul émotion soyez au rendez-vous de dañu nekk di bind les pages de l'histoire les pages historiques de la révolution sénégalaise encore une fois wax naa leen ko ñun dañuy jàng histoire jàmbur yi mais ñun amuñu histoire da ngay jàng école secondaire ba lycée ba dem terminale ba dem université amuñu histoire Cheikh Anta Diop lañ fiy raconté ay histoire am te moom il parle de la euh, euh, de la négritude point amuñu histoire ñun Sénégal tracé wuñu histoire amuñu date historique amul benn date boo xam ne dañ koy feete boo xam ne ñun ñoo ko xeexoon amul Sénégal loo gis naar yeeko moom dat yu ay naar moom ay tabaske ay tam ay koriteek ay ay ay ay ay Noël ay ay ascension amuñu benn date historique donc jamono jii lañ nekk di tracer di rëdd le les les phrases historiques de not de notre époque donc fu mu ne if ku nekk dugal ci loxoom dugal ci ñaqam dugal ci deretam ba mu des fi nga xam ni ñun au moins dinañ am dans l'histoire suñu histoire ñun tam bu ñuy jàngal suñuy sëtaati sët yi nga xam ni fii ak ay siècle dina fi dina fi des donc nañ tracer l'histoire on est en train d'écrire les les phrases les plus splendides de de notre histoire li nga xam ni c'est euh, historique c'est des dates historiques donc encore une fois gars yi on doit faire fi musul am lu maam réussir